maanaam njàpp am na juróom-ñetti sunna al ula ba jëkk ba raxasul yadayni mooy raxas ñaari loxo ya xabla idxaali ci maa njëkk seenug tàbbal fil inaay ca ndab la wayeen wi it dana yéene bi xas li ci maa seenu raxas ak taxabuda jaamu yàlla waaw nee na sunna bu njëkk ci sunna njàpp yi mooy raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jara yi tikku jara mooy fi ñu takk montar wayeen wi dana yéene bi xas lihima ci seenu raxas ci seenu raxas ñoom ñaar ak da jaamu yàlla waxina woowu nag daa wax ne raxas gi ñu raxas ñaari loxo yi ci booy tàmbali njàpp dañu ko sant te xamuñ lu tax ndax taqub loxo yi doon taxut ndax boo doon jàpp yàgg yàgg njàpp moomu toj ngay tàmbaliwaat it lu tee ñu bëgg nga raxas loxo yi booy tàmbaliwaat ba tey boo bàyyi ko woon ci cangaay loxo set wecc te du tee ñu yi ñetti yoon door a tàmbalee fekkee ndab la looy as tax mu ne kon yéene mënu ñàkk daa bëgg wax ne faaw nga yéene raxasu ñaari loxo yi kon da nga yéene sunna si rek ndax ni nga raxas bi sunna la ngir xam ne taxabut la taxabut na koo ko déggee ci fiq rek mooy lu ñuy digal te xamuñu illa ja maanaam xamuñu sabab sax ni ki loxo yi dañ ñoo digal raxas gi te ak taq moom xam nañ ni taxut ndax bu taq taxoon kon saa yu setee du jar nga di ko defaat léegi ni ko misaal léegi boo doon jàpp ba yàgg njàpp moomu toj te tey bëgg booy tàmbaliwaat njàpp mi nga raxasu xëy ñetti yoon door a tàmbalee as loolu nag bu dee ndab loo mën a as bu dee ndab loo mën a dëngal lay doon su ndox ma baree lool lool ba kenn mënu koo dëngal moom da ngay jékki-jékki rek as bu dee ndoxum géej wala dex itam da jëkk jékki rek as mënees na ko dëngal waaye yow ko da ngaa jékki rek as ñu seet ba xam bu fekkee ndox ma sopp ko na kon moom ndox ñàkk nga ko waaw nga wutiwaat meneen bu fekkee sopp ko nag kon baax na xat nga ndigal rek mooy jékki-jékki nga as te raxasoo say loxo rek waaye du tee ndox moomu baax waaye yaxsil dina raxas kulla waahidatin benn bu ne xalaa xidatihaa ci wéetam xalaa xidatihaa ci beroom mooy ci wéetam salaasa ñetti yoon liñ gën a taamu mooy benn loxo bu ne danga koy raxas ñetti yoon ko defee mu juróom benn soo boole woon ñaari loxo yëpp raxas ko benn yoon sulu si am na ci benn yoon bi boo boolee ñaar yëpp raxas ñetti yoon ñu bari noonu la ñuy def ndax yàkkamti ba tey baax na waaye liñ gën a mooy benn loxo bu nga ber ko raxas ko yetti yoon yi boppam xam ne soo ko boolee mu juróom benn yoon ak taaniyatu ñaareel bi al madd maddatu muy galaxandiku waxiye moom idd xaalul maa mooy dugal ndox ma fil ci gémmiñ nga summa yu xadd xiduhu topp dana ko yëngal waya mujjuhu te mu koy yàbbi waaw leen nga lax ci njàpp te loolu mooy ndox mi nga seex ko ci sa gémmiñ yëngal ko ba noppi nag yàbbi ko hmm. al thaalisatu ñetteel bi al istinshaaxu mooy sarax ndiku waxu moom nag jazbul maa yi mooy ñoddi ndox ma muy xëcc ndox ma bi nafasihi ci ak nooxam li daaxili am fii jëm ci biir bakkanam sarax li ku nee mooy nga ndox mi ba mu jegee say bakkan nga xëcc nga xëcc ko sa noog bakkan dugg ca biir dana ko wax léegi bu fekkee ne wóoroo mën nga ñu bëgg nga ñoddi ko bu baax mu jàll ba sori ca biir boo waree na mu yem ci bunt bi rek ndax bañ mu rëcc sa koor di dog ko arrabihatu ñeenteel bi al istinsaaru mooy fiiru fiiru waxoo moom daful maay mooy jiñ ndox ma minal anti tukkee ci bakkan ba bi nafas yi ci nooxam maxa jaali sababati ànd ak def baaraamu sànnikaay ba wal ibhaami ak baaraamu doy ba min yadi yi ci loxoom al yusra bay càmmoñ xalaa an fii ci kaw bakkanam aw nee na fiir moom mooy ndox mi nga dugaloon ci say biir bakkan soo jàppee ci say bakkan mel ne koy ñandu xam ne sa ñaari baaraam ci loxob càmmoñ bi ngay ñandoo muy baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu doy bi ci loxob càmmoñ moom ñu bëgg nga jàppee ko bakkan bi daal di wal nag ndox mu nga dugaloon ci biir ca ba ngay saraxandiku nga wal ko mu génn ci witti loolu mooy fiiru wayu baalixu dana jotal xayru saa yi bi kul aji woor fil madd madat ci nga laxandiku wal istinshaax ak saraxandiku bu fekkee ni wóoroo dañoo bëgg bay nga ndox mi nga nga ko bu baax mu dugg ba ci biir duñ gi booy saraxandiku itam nga dugg nga sànni ko bu baax maanaam nga noddi ko bu baax ci biir bakkan yi ba mu sori ca soo wooree nag moom dañuy sib loolu ndax dañuy bañ mu rëcc jàll te bu jàllee rek koor gi dog wal afdalu la gën ay yetta mad mada mooy mu galax ndikoo bi salaasi ci ñetti tànqeen su ma yestan shaqa topp dana sarax ndikoo ba tey bi salaasi xarafaatin ci ñetti tànqeen neen li ñu gën a taamu nag mooy galax ndiko nga defee ko ñetti tànq mooy li nga njëkk a sa loxo danga nga koy sax lépp benn yoon yëngal ko yàbbi ko ne benn del defaat sa loxo ndox seex lépp benn yoon yëngal ko yàbbi del defaat ndox ci sa loxo seex ko lépp yëngal ko yàbbi daal nekk ñetti tàng di ñetti galax ni ko sarax ni ko loolu ci gën dangay def lu yem ci bakkan bi nga daal di ñoddi benn yoon daal di wal loolu mu génn del defaat ci sa loxo ci ndox lu tollook bakkan bi daal di ko ñoddi mu dugg nga wal ko mu génn nga del defaataat nag lu mel noonu ko defee mu ñett teewul nag boo ko defee noonu xanaa tàng benn yoon rek wala ñaar galax ni ko ca sarax ni ko ca itam ko tee baax waaye ñu wax na mooy ngëneel li alxaamisatu juróomeel bi masxul udunayni mooy masaa ñaari nopp ña waaxirihima seen biti wa baatinihima ak seen biir bi añ yu doxile ci mu dugal sàbbaaba tey ñaari baaraami sànnikaayam fii sima ci ñaari bën bëni noppam waaye jaxalate muy def ibhaama yi ñaari baaraami dayam xalaa zaahirihima ci kaw seen biti ñoom ñaari nopp ña mooy nga masaa nopp yi biir ak biti li ngay jàkkaarlool boo dee xool nopp nit ak la féeteeg bopp nga xam doo ko seen yaa yëpp ngay boole masaa niñ koy defee nag mooy baaraamu sànnikaay bu ne ci sab loxo day dugg ci paxum nopp ba su ko defee baaraamu day bi nag mooy bomb ci biti xam ne kon baaraamu sànnikaay bi moom dugg ci biir paxum nopp ba su ko defee baaraamu day bi nag moom mooy bomb ci kaw nopp bi xam nga ñaari nopp la su ko defee muy ñaari baaraam yu sànnikaay noonu loxo bu ne am na sànnikaay ak ñaari baaraam yu doy ndax loxo bu ne am na baaraam yu doy kon nuñ koy defee du aajo woon ngay jéem mu set ndax jublu rek ak jàppandal bu jubloon mu set ñu wax la nga raxas ko boo bombee benn yoon rek bu baaraam yi duggee ci bu baaraam bi sànnikaay duggee ci paxi nopp yi nga bomb benn yoon rek baax na as saadisatu juróom-benneel bi tajdiidul maay tajdiidul maay mooy yeesal ndox ma li mas xin ujunay ni ñal masa ñaari noppi ña yeesal ndox mi dañ koy boole ci sunna yi yeesal ndox mi mooy bi nga masaa yee nopp loxo tooy na ba tey nga bañ a doyloo tooy ay boobu nag asaat ndox mi yees def ko ci baaraam yi nga xam ne war a masaa nopp ndox mu ndox mu yees bi ngay defaat ci baaraam yi nga xam ne mooy baaraam mu dee bi nga wax léegi ak baaraam sànnikaay bi nga xam ne ñooy masaa nopp yi nga def ci ndox mu yees bala ngaa masaa nopp yi loolu mooy yeesal ndox mi ndax xam nga bi ngay bàyyi ko ci massa boobu bi fekk mu doon ñëw waaye du nga ba nga bañ a doyloo tooyaay boobu nag defaat ci ndox mu yees suma la assaabi xatu juróom-ñaareel bi raddul yaday mooy delloo yaari loxo ya fii masi si ci massa boobu ba maanaam delloo massa boobu bi sunna la ndax bu ñëwee massa boobu bi farata lay dañoo jublu ne dem bi ngay dem moo doon farata waaye wañal bi ko waat ba fa nga tàmbalee woon nag sunna la niki boo defee li sopp tàmbalee fi jibi fi kawar baaxoo kon boo demee ba ca dox ga rek farata jàngoo ko nga wañal di ko waat nag ba ñëw ci jëbi nag loolu sunna la tàmbale jëbi dañ ko sopp rek waaye boo tàmbaloon ci dox ga ba delluwaat ci dox ga itam bu baax lu mu ci mën doon rek dem bi mooy nekk farata dellu bi mooy nekk sunna at taaminatu juróom-ñetteel bi tartibu faraidihi mooy ay farataam sunna juróom-ñetteel bi mooy nga toftale farata yi toftale farata yi mooy yéene ak raxas kanam ñooy jiitu raxas loxo topp ci massa bopp topp ci su ko defee nag tànk yu mujj loolu sunna la boo doon jàpp tàmbalee ko tànk yi tam du ko tee baax ndax sunna rek nga bàyyi waaye nag nga defee ko li ñu wax daal moo gën tam biixul li ak yeete la man taraka ku bàyyi faradan farata min faraidil wudu ci faratay njàpp fa innahu naka moom yati dana dikkee bi ci moom su ma wax ni du topp dana baamu asalaata julli ga nee na boo doon jàpp bàyyi ci farata joo xam na nga koo fàtte ba defoo ko waaw ah, kon nee na saa yoo ko fàttalikoo da nga daal di koy def waaw ah, soo ko defee nit fekk ne jot jot ngaa julli nag kon julli nga julli moom du baax ndax farata moom bu xasee manqué day mel ne defoo dara kon bu fekkee julli woon nga itam faaw nga julliwaat kooku moom mënu koo teqali waaye boo gaawee fàttaliku te yeggut dañuy bëgg nga def la nga fàtte woon ba noppi teg ca la ca topp ba am waat ko ndegam yeggut te yàggee nag nga def li nga fàtte woon kese yam ci waaw loolu jëriñ weesu yëpp wax nañ ko ci ne bu fekkee da ngaa fàtte woon raxas loxoom day joor dal ko gaaw a fàttaliku dañoo bëgg fekkee njàpp mu noppi woon tam loxoom day joor bi nga fàtte woon nga def ko noppi jàll teg ca loxoom càmmooñ jàll masaawaat boobu jàllal ba ca tànk ya su fekkee boobaa leen yàgg na nag nga yem ci def loxoom day joor bi nga fàtte woon nga yem ci bañ a baamu la ca toppoon wa man taraka ku bàyyi sunnatan sunna fa innahu naka moom laa yu'idu du baamu assalaata julli ga waaye yafalu dana def tilka sunnata soosali sunna li maa ngir li nga xam ne yustaqbalu def na ko jublu mu ne salawaati ci julli nee na bu fekkee bi ngay jàpp na nga ci bàyyi sunna soo xam defoo ko ni ki masaa say nopp mbaa galax ni ko mbaa sarax ni ko loolu moom boo demee julli ci ni moom jàpp itam du tey julli ko baax na dañuy sopp rek nga def ko ndax su fekkee njàpp mu gaawte toj boo ci defar geneen jaamu yàlla fekk sunna soosu am ci njàpp ma xam nga ne njàpp moo xam ne ay sunna mat na moo gën njàpp manque sunna ba bu fekkee njàpp yaa ngi dem ci wa léegi am ci yitte xam ne kon njàpp ma day toj rek kon du jar ngay dem def sunna soosu wa fadailuhu ay ngëneelam ihda asharata fukk la bu njëkk ba at tasmiyatu mooy wax bismillahi fi ibtidaayil wudu ci tàmbali njàpp ma bi an yaqoole ci wa ida nasiha ndem fàtte na ko fi ibtidaayihi ci tàmbaleem su ma tazakkaraha topp mu fàttali ko fi asnaayihi ci biiram mooy ci biir njàpp mi ataa mu dikke bihaa ca moom nee na booy tàmbalee njàpp wax bismillahi ngëneel la su fekkee da ngay tàmbale nga ko fàtte dem ba ci biir nga fàttali ko kon sa yow wax ko fa nga toll rek athaniyatu ñaareel bi adduxaaw mooy ñaan baxdal faraaxi ci gannaaw noppi minu ci njàpp mi bi ay yàqoole ci mu wax waxu raafixun muy aji yëkkati tarfahoo gisam ba ila sama jëm ci asamaan ne ashhadu maa ngi seere ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallahu mbira yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jànn aji bokkaale la ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ne anna muhammadan naka muhammad xabduhu ak jaamam la wa rasuluhu tey ab yonenteem allahumma yow buuru ijxal ni yàlla nag ma def mina tawaabiina ma bokk ci tuubaa kon yi tuubaa kon yi mooy ñi nga suñ defee bàkkaar daal koy tub fa saasa wacc xam ne yàlla na ma def minal mutatahirina ma bokk ci way laam ñi ci bàkkaar waaw ah, nee na ngëneelu ñaareel bi mooy boo jàppee ba àggal nga yëkkat say bët xool jëm ci asamaan donte yaa ngi fu mel ni nii bi ñu jàngee nga xam doo seen asamaan du tee rek ñu sopp nga yëkkat say bët xool ci kaw moom daal di wax nag ashhadu ba ci minal mutatahirina wala hadis boo xam ne boo ko defee ñu ubbil la bunti àjjana yëpp mu juróom-ñett ku la duggee attaalitatu ñetteel bi an laa yatakallama mooy bañ a wax fi wuduihi ci njàppam ah bi ko ñetteel dañoo bëgg nee na bu fekkee yaa ngi jàpp bu wax dara yi waxi àdduna arrabihatu ñeenteel bi xillatul maa yi mooy néew ndox bila xaddin ci lu dul limite kalxus bi cangaay maanaam ngëneelu ñeenteel bi mooy ndox bi nga bañ ko yàq def lu yem ci sab cër rek dégam cër yi daa wóote am nañu rëyle am na ñu tuutile am nañu noyle am nañu ñagasle kenn ku nekk na def lu yem ca moom rek te bañ a ëppal loolu niñ ko soppee ci njàpp loolu niñ ko soppee ci jàngaay ba tey maxa ihkaamihima ànd ak seenu xereñe bi kasril xamsati ci kasra xamsa ga ay li mu ci nam itqaanihima seenu xereñe xereñe wax yi ma lox la maanaam mooy defe na mooy loo defe nam gën a baax dafa wax ne bu ñu dañoo sopp ndox mi nga bañ ko yàq daf la yem rek dañoo bëgg bomb nga bomb bu baax a baax ba mu seet bu baax a baax loolu mooy xereñe gi alxaamisatu aji juróomeel ja assiwaaku mooy soccu bi odin ci bant rattabin bi aji aw yaabisin wala aji wow bokk na ci ngëneeli njàpp bala ngaa njàpp nga soccu socc bi nag soo mënee jël bant socc ba mu set nga galax ko tuur door a tàmbalee njàpp muy gën jamono yi nga xam ne wóoroo moom mën ngaa soccoo bu tooy mën ngaa soccoo bu wow waaye yooyu jamono ndegam wóoroo sax moom bu tooy bee gën ndax daa mel ne bu tooy bee dàq setal moo tax mu ne wal axdaru bant bu tooy ba afdalu moo gën li xëyri saa yi mi ñeel ko dul aji woor maanaam su fekkee ne wóoru bant bu tooy bi mooy gën boo wooree nag moom nga jël bant woowu ndax bant bu tooy bi soo muus soo muusoo ndox moomu rek koor gi daal dokk fa in lam yejit ndéem amut oxon dan ab aw bi usbuux yi kon nekk na ci baaraamam aw bu shay in wala ci dara xashinin luy aji ñagas yenn su fekkee amoo bant boo soccoo kon mën ngaa boom bi bañ ñi say baaraam wala bu fekkee am nga borosu li gën noppal sax mooy nga wut borosu boo xam ne rek boo bëgg jàpp daal di koy awale ci kaw bañ yi rek galax di ko tuur daal di tàmbalee soccoo bil naa ci loxum ndeyjoor bi maanaam booy soccu dañoo bëgg nga soccoo loxum ndeyjoor te bañ a soccoo loxum càmmoñ wa yakun dana nekk xam lu dooy ci njëkk jàpp wa yatta mab mabu te muy galaxandiku ba doxoo ci gannaaw waaw ah, li gën mooy bala ngaa tàmbalee njàpp ngay galax ngay socc ba noppi galaxandiku tuur door a tàmbali njàpp mi nag loolu moo gën wa isa baxu da dem soree na maa la nga xam ne bay na loo dooy nekk na diggante njàpp ma wa salaati ak julli ga istaaka mu soccwaat maanaam bu fekkee ba ngay jàpp socc woon nga waaye nag waxtu jàppoo ak ba ngay julli da nga sore bëgg nañ bala ngaa julli nga dellu soccuwaat wa na xadarat ndem teew na salaatu julli uxra geneen waxuwa te moom xalaat taxaarit nekk na ci laab istaag kon mu soccu li saaniyati ñeel julli ñaareel gi xanaa bu fekkee ba ngay njàpp soccu woon nga daal di julli ca moom a njàpp waaye njàpp moom mu tëjul nag ba ngeen julli ñëwaat nga bëgg ko cee julli kon bëgg nañ bala ngaa julli julli kooku nga delluwaat soccu nga soccuwaat ngir julli kooku assaadisatu uh, juróom-benneel bi an yatawadda a mooy mu jàppe fii makaanin ci béréb taahirin bi aji laab na bokk na ci nga doon jàpp béréb ba ngay jàppee laab bañ am sobe bañu nekk wanag wanag moom doom te kenn defu bu fa dara dañ ko rëdd rek bàyyi baa ñu defar ba mu jekk rek bàyyi toxu ñu taamu ku fa jàppe du tee nag boo fa jàppee itam bu baax waaye daal nga jàppee foo xam du wanag te waajaruñ ko ngir wanag moo gën am sobe boole ca assaabi xat juróom-ñaareel bi añ yekkoon mooy bu nekkee alinaaw ndab la xan yom yi ci wetu ndey jooram inkaana ndem nekk na maftooxan di lu ñu ubbi ndab li ngay jàpp bu fekkee day looy as xam ne daa ubbi ku ne bool wala biwaar kon mu féetale ndey joor lañ gën a taamu bu fekkee lu mel ne satlu mbaa doo as kooku moom mu féetale càmmoñ moom la ñu ndax moo lay gën a jógu ak taaminat juróom-ñetteel bi añ yu xaddima mooy mu jiital xaslal mayaamini raxas ndeyjoor ya xalal mayaasiri ca càmmoñ ya maanaam bokk na ci ngëneelu njàpp lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ nga njëkk ndeyjoor dara def càmmoñ ne booy raxas loxo yi njëkke boobu ndeyjoor booy raxas tànk yi njëkk tànku ndeyjoor boo njëkkoon bu càmmoñ du ko tee baax ci ñoom ñaar ñëpp waaye nga njëkke ndeyjoor moom ngëneel la artaasi xatu ak juróom-ñeenteel bi ay yab da am mu njëkkee ay yëb da am mu tàmbalee bi muqaddami ra'si ci njëlbeenu bopp bi maanaam bokk na ci nga nee li njàpp booy masa bopp bi nga tàmbalee ci jëbi fi kawar baaxoo saxe wuti dox ga waroon masa tàmbalee dox ga bu ñëwaat ci dox ga itam mu baax waaye nga tàmbalee ci jëbi rek sa masaa yi bu ñëwaat ci jëbi loolu ngëneel la tàmbali bi mooy ngëneel ne bu dee jëmmi def gi moom waxoon ne dem gi farata la ci boo dee masa wañu ko bi sunna la alxaashiratu fukkeel bi ay murattiba mooy mu toftale al masnoona la ñu sonaal maxal masnooni ànd ak la ñu sonaal kal mab mabati ni ki yàllax ndiku wal istinshaax ak sarax ndiku maanaam ngëneel bi leen fukkeel mooy waxoon nañ ne toftale jëm yi farata yi moom sunna la léegi nag nga toftale sunna yi mu ànd ak farata yi la jiitu jiitu la ci topp topp ji nag xam ne sunna yi day dugg ci biir farata yi nu war a duggee mu duggee na loolu lañ boole ci ngëneel yi alxaadiyata xasharata fukkeel beeg benneel añ yu karrira mooy mu baamu la lañuy raxas talaata ñetti yoon nee na fukkeel beeg benneel mooy kanam geeg loxo yi dañ ko wax léegi bu nga raxas ko ñetti yoon soo raxasee benn te benn boobu daj te set kon ñaareel ba ngëmeel rek la ak ñetteel ba waaye boo raxasee benn te setul moom ñaareel bi du mën a ñàkk boo defee ñaar setul ba tey ñetteel mënta ñàkk waaye boo xasee benn te boobu setal moom ba ca toppaat ngëneel la te xilaafil moom sooxi ci wuuteeg lu ñu masaa waxuwa te moom lu ñu masaa ar asu bopp wal udunaan ak ñaari nopp fa innahu naka moom laa bu deful sopp takraaru mas yi baamu ak masaam waaw maanaam bopp beeg nopp yi ñu masaam moom nee na tàmmuñ nga di ko baamu lu ëpp li la waxoon bopp bi moom boo demee dikk rek doy na nopp itam boo ko masaa benn képp doy na ndax jubluwul mu set bu jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko kon nag bopp bi demal dikk rek dem di farat wañu koy du nopp itam masal benn yoon rek bàyyi tam biixun li ak yeete la asiyaadatu dolli xala salaasati ci ñett xayru mashruxatin dumu luñ yoonal maanaam def ba def lopp ñett mel na raxas kanam ñeenti yoon baa ngi raxas loxo ñeenti yoon waaw loolu ëpp naa def nee na doo yoon waxtu li fa wóoteef na xal tukrahu ndax def koo sib aw tum nax wala def koo tere tere ak araamal xawlaani mu yaari wax mashhuraani yu duñ siiwal dañ caa wuute ci ndax sib dong ci la yem wala dafa araam kay waaye moytu bu baax daal moo gën a wóor wala yustahab bu deful sopp itaalatul xurrati guddal xurra waxiya moom nag asiyaadatu mooy dolli xalaamaa ci kaw li nga xam ne wajab waroon na a ko ak raxasam minal wacc ci kanam nga wala yedee ni ak loxo ya maxal mirfaqayni ànd ak ñaari conceer li ñu wooyee guddal xurra mooy cër bu nekk bañ la koy wax nga raxas ko dañ koo sàkkal yemukaay yow na nga dem boo yor sa boobee nag ba raxas lu ci bokkut loolu mooy guddal xurra léegi kanam dañ ko wutal guddaay wutal ko yaatuwaay boo raxasee ba weesu loolu rek boole ci lu ci bokkut mel ni bëgg raxas doq gi wala baat bi su boobaa yaa ngi def li ñu sib loxo yi dañoo waxoon nga ëmb conc yi tuuti rek ndax yemaleeg conc yi dafa jafe lool nag kon boobu bëggee topp di yooyu mel ne ku jàng wuti mbagg ma ñu ko mhm. tànk yi tam noonu tànk dañ ko yemale ci dojar yi boo ko ëmbee tuuti kon boo ko weesoo jëm ca batiwa bu mel ni kuy jàng ba tey ñu sib ko wala masxu raqabati du jaageenu masa baat waaw nee na ngay masa sa bopp far masawaat masawaale far sa doq sa baat loolu tàmmuñ ko wala ba sa ayub nag bi masxil a'daay ci fomp cër yee bil min jilu cib sarbet maanaam nag booy jàppee ba noppi nga fomp say cër fopp fomp ndox mi la tooyoon ci cër wala musa maanaam ci musuwaar wala ci sarbet dara nekku ci faslun li ab dog la al istinjaau tàncu waajibun aj war la dañ koy wax tàncu muy baat wolof waaye mooy bu demee ci wana wa fas ci doon génne mu raxase ko ndox firi ko sax ne waxuwa moom xaslu mawdihil xadasi moo di raxas bérébub toj ma bil ci ndox ah bu demee ci wana wa sobe sa génn ci moom bu ko dindee ndox mooy raxase ko ndox loolu moo tudd tàncu boobu nag warugar la ndox dañuy bañ a julliwaale sobe wa yustanja def na tàncu min kulima ci lépp loo xam ne yaxruju dana génn minal maxrajayni bàyyi ko ci ñaari génnukaay ya mootaa dan mbir mu muy lu baaxoo xanaa muy lu fa baaxoo génne si war riixi ndare aw gelaw nee lépp loo xam ne sobe la su aadawoo génn ci buntu suuf bi mbaa ci buntu saw mi su génnee rek ñu war a raxas fa mu génne woon ba des nag gelawal gelawal moom gelawal kese lay doon su génnee du aaji war a raxas fa nga xam ne fa la génne muy buntu suuf bi lu may mu génnaaleeg sobe waaye bu dee li kese moom du aajowoo raxas buntu ba wasifatuhu aw meloom nag añ yabda a mooy mu jëkkee bi xasli yedd yi ci raxas loxoom al yusra bay càmmooñ xabla mulaaqaatiha ci njëkk ak tasee mag njëkk ak tasee mag al ada sa li ci gën nag nee na mooy loxob càmmooñam bi nga xam ne mooy bëgg a raxas sobe si laata muy laal soobe si da koy raxas xaar te laalagul dara loolu li muy jëriñ mooy bu laalee sobe sa ba noppi du xeeñ loolu lay jëriñ tuma bi xasli maxallil bawli topp nag mu teg ci raxas bérébub saw ba suma yantaqilu topp dana toxu ila mahallil ghaayiti suma yantaqila topp dana toxu ila mahallil ghaayiti jëm ci bérébu xayta ba wa yasubba te muy sotti almaa ndox ma xalaa yadihi ci loxoom xaasilan mbir muy aj raxas biha ak loxo ba almahalla bérébu sobe ba wa yastarxiya te muy yolomlu xalilan tuuti wa yujiida te muy rafetal alxarka ragg ga xataa yun xiya ba ba muy setal almahalla béréb neen dañoo bëgg itam mu njëkk raxas fi saw mi doon génne ndax ndegam mooy sobee si gën a woyof na ko njëkkee door jàll nag ci buntub xayta bi su ko defee day sotti ndox mi ci fi nga xam ne fi la sobe si doon génne muy xayta yi te bàyyi buntu suuf bi mu yolom mu yolom mooy dafa def ay ras buntu bi daa def ay ras-ras yoo xam ne su ko bàyyee mu banku mën naa am sobe sa banku waale ca waaye su ko bàyyi rek mu yolom ko defee mën koo raxas ba mu set ko defee mu ragg ko bu baax nag ba mu set rek bu njortam dëgëree ci ne set na rek baax na soo yéex si lu topp na raxas yàddu ko loxoom baax da zaalik ci gannaaw loolee bittura bi ci suuf wane fi ak niroog moom loxo bi mu doon raxasee sobe si nag bu noppee da koy raxasaat ak suuf mbaa saabu mbaa dara ndax bañ mu xeeñ waaye nee nañ bu fekkee dañ ko digaloon def na ko mooy laata loxo bi laal sobe si njëkkoon na ko raxas ak ndox te laalagul dara. su boobaa kon loolu doy na du xeeñ bu la soobee yàlla wal istibraul laablu waajibun aji war la laablu mooy nga mu teeylu ba nga xam ne lépp lu nar a génn rek génn na li fekk mi ngi yëg ne am na lu nar a génn rek mu jóg na ko xaar ba loola génn bu dee bunt suuf moom loolu dong la ci man ndax duñ ko digal mu dugal baaraamu ci biir déedéet li génn ci bitti rek moom loola raxas bu dee bunt saw bi tamit tawi sawum góor nag moom léeg mu tàgg moom lañ koy bëgg wax ni mu koy tàggantee kon laablu boobu wax wa moom laablu istifraaxuma mooy sàkkoo jeexal lépp la ko xam ne fil maxaraji nekk na ci ñaari génnukaay ya menel ada ci sobe nee na laablu mooy balaa raxas rek mu wóorlu ne lépp lu doon génn rek génn ba noppi wa sifatuhu aw melaw na nga mënal bawli ci saw ay yejj xala mooy mu def zakarahu zakaraam bay na usbuhayhi diggante ñaari baaraamam as sababati te mooy baaraamu sànnikaay ba wal ibhaami ak baaraamu doy ba fayu mbir ruuxumaa te mu leen rombale min asli yi tàmbalee ci cosaanam maanaam mooy fa mu saxe ilaa busrat yi ba ci ab boppam wayam turahoo tem koy fëgg waaw nee na bu dee sawum góor amaana mu tag ni koy tàggantee nag mooy day tàmbalee ca fa sawukaay ba saxe rat ko ndànk da koy jàpp ak ba baaraamu sànnikaayam ak baaraamu deyam rat da koy rat ndànk tàmbalee fa mu saxe jàpp baaraamu sànnikaay bi baaraamu dey moom la koy jàppee rat ndànk baag si ci bopp bi su ci bopp bi nag mu fëgg ndànk bopp bi yaf xalu dana def daalika loole talaata marraat ñetti yoon bi xiifatin ànd ak woyof fi saltu ca ratt ga wan natri ak fëgg ga neen loolu nag bu mu ci diineem ba tax mu def ko bu baax a baax su ko defee bu baax a baax amaana kocc bi nga xam ne mooy téye saw mi amaana mu mujj yolam du mën a téye saw mi bu baax bu ko defee day soppi ko njokkale du koy def ndànk rek te te bu njortam dëgëree ci ne li war a génn génn rek mu daal di bàyyi jarul jax-jaxe waaye jibu dana war xas lu zakari raxas sàkkara sa kullihi léppam li xoroojil mas yi ngir génnuk mas yu mas yi waxoon nañ ci gannaaw lu koy génne ne moom nag bu génnee dañ noo digal raxas sawukaay bi fam saxee ba mu yem doonte taq ci itam te bu doon saw nag moom fam taq dong lay aajoo mu raxas ko waaye lii dañu ko digal wa fi wujjoo bi niyati nekk na ci war bu yéene ga fii xas lii ci raxasam xawlaani ñaari wax ndax dana aajowoo yéene am jarul yéene am na yaay wax wax ji gën a mooy daa mel ni say boo ñu yéene ko ndax ndegam dañu ne ñu raxas ko doonte taqut mel na ne nekkoon yéene ji gën a wóor waxul nag dawandiku al istijmaar dawandiku mooy bu demee ci wana wa sobe si mu dindee ko bant wala doon ci suuf ba leneen yu demee noonu loolu tam sañas na ko waaye ndox nag moom moo gën saa yu ndox mi jàppante rek moom ñu gën a taamu faslun li ab dog la aadaabu qadaa'il xaajati teggiini faj aajo faj aajo mooy dem wanag arbaxata xashara fukk la ak ñeent adaban ci teggiin dem wanag am na fukki teggiin ñeent yoo xam ne sopp nañ ko al awalu bu njëkk ba dikrullahi moo tudd yàlla xinda iraadati duxooli fanam ma dugg ga xablal wusooli ci njëkk àgg ilaa mawdihil adaa jëm ci bérébu sobe ba fa yaqul te muy wax bismillahi maa ngi duggee ci turu yàlla allahuma yow buur bi indi man awoodu danaa muslu ko ci yow minal xubuti ci saytaane yu góor yi wal xabaa'isi ak ci gannaaw génn min hu ca bérébu sobe ba xufraanaka dana nu sàkku sa njëgal alhamdu xeeti cant lillahi aji la yàlla allasi yàlla mi nga xam ne adhaba dindi na xànni walis ma al adha sobe sa waxaa ma yenn bi ci mooy bala ngaa ci wana wa nga wax ñaan gi tàmbalee bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al xubuti wal qaba'ith saa yoo itam nga wax ne xufraanaka alhamdulillahi alladi adhaba xanil ada wa xafaani loolu benn tegin la yajuusu dagan duxul xalaay dugg ëmbal wala dugg woon ak bicheen ànd ak dara fii loo xam ne nekk na ca zikrullahi tudd yàlla taxalaa kawe na kal xaatami ni ki ab jaaro wa dirhami akub dërëm ne nee nag sañes ta ci woon ak loo xam ne daa am tur bi moo xam nañ koy def ci ab dërëm wala ñu def ko ci jaaro kon mu ko duggaale ci woon a wala yajuusu daganit al istinjaaw tàncoo bi shay in dara fii loolu nekk na ci moom zikrullaahi turu yàlla taala kawe na na moytu itam nee na buy raxas sobe si mu di ko raxasaaleeg lu am turu yàlla moo xam jaaro ba dafa duggaale jaaro ba tam am turu yàlla te loolu aaye woon nañ ko bu ca boole raxas raxasiwaale ko mu gën a aayate ba tey bu dee aw kayit mbaa aw donj wuñ bind turu yàlla mbaa dara itam rek ëpp naa def loolu araam na saa attaani ñaareel bi ay yuqaddima mooy mu jiital rijlahu tànkam al yusra bay càmmoñ fi duxoole ca dugg ga wal naa mu jiital ndeyjoor ba fil xuruuj ca génn ga maanaam sopp na ndegam bérébu sobe la booy dugg sa tànku càmmoñ mooy njëkk dugg booy génn nag sa tànku ndeyjoor njëkk génn mboolem béréb yi nga xam ne béréb bi sobe la noonu lañ cey def bu dee bu ñu màggal mel na jàkk nag moom dañu sopp booy dugg sa tànku ndeyjoor njëkk a dugg booy génn sa tànku càmmoñ njëkk a génn ak mboolem mbir mi ñu màggal ak taalis ñetteel bi ay yaqdiya moo di mu faj xaajatahu aajoom wax wata fekk na moom jaalis na aji toog la aw nee na bokk na ci ngëneel yi dem boo nag mu àgg suuf te bañ a taxaw bu fekkee day xayta sax moom àgg suuf day war ndax bu taxawee rek daal di yàq lu bare bari arraabi ñeenteel bi añ yu diima mooy mu saxal